yéen suñ Kawsara Daaru Kawsara nekk yëpp ñu tëjee Makka la aw Makka bi yëpp ñu diggante lépp Madina la salaatu ayaatu Allahu akbar laa ilaaha illallah Allahu akbar wa rahmatulah. dinaa danaa dem Kawsara kooku lu ko wasal wàcc na ba nga xamee ne Abdoulaye doomu Yonent sallallahu alayhi wa sallam mooy Tayyib mooy Taahir itam génn na àddina de ci fukki weeram ak juróom-benn wala fukki weeram ak juróom-ñaar bam dee. ci bésab tabaski la ah Aas ibn Waa'il wala Waliid ibn Muxarasa wala Abu Jahl ibn Hisaam wala ñoom ñëpp ñu ne Muhammad daal moom la yàlla dog ci wépp yiw ah mu waay nit koo xam ne doom ji góor bi dund daal moom mënu ko am doom ji góor ju mu am rek balaa ferdee kii la yàlla bañ dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg kii la yàlla dog ci wépp yiw yonent dégg ko nag mu naqadi ko bëgg yéen nañ ba génn xaw naa ñàkk a génn sax ci liggéey xeer yàlla wàcce saar bi la de saar bi nag li muy gàtt yëpp mi ngi mel ni mottali lépp li wéyoon ci téere bi la ak lii dikk fi rawatina yonent melo yi wéy ci saar bi woon léegi meral noonu yonent ba ne dañoo xaay dañoo nay bay bom bay ba ma ko jidim yonent moom ñu ne ko jox nañ la ñu bari ndaw bu nay leen joxe ñu bari yonent innaa naka nun yàlla aataynaaka may nan la al kawsara kawsar jox nañ la kawsara jox gi jox ak may la waxul aataynaaka rek lii taaw dañ la jox la te fekk moomu la ko waaye li ataaw ataaw moom suñ ko joxee ko moom wax na wala xalaatee naa ko sabal mi al masaani yi jox nañ la sabal masaani ci alquran waaye taxul yonent moom alquran lii nag daa tax natt yëpp lañ ko tëggee pour ñu xam ne may nañ ko may koo xam ne moom daf ko moom moom du dog te tàmbalee na ko mubtada bisimi inna ji ci jublay mubtada lay tabbi taw kiit ne ko inna waxut danaa la jox muy mu daareono jox naa la ba noppi la pour mu xam ne jox bi lu tabbi la al kawsar kawsar de ma jaana luy kawsar ñu ne mooy déeg bi nga xam ne yonent dana ko root di ci nandal ñëpp na ne ñi nga xam ne dañuy jaamu yàlla dëddu àddina seeni madaan tilim seeni kawar cugg ñoo koy root way ñàkk xeet wi kawsara dégg leen cambali léegi ku sakk fa ñaar nopp rek riit ñi ngay dégg mooy kawsara xama fu mu ne waaye yonent ne boo sakkee fa ñaari nopp rek dégg réeda riitam déggu la dara bi nga sakkee fa ñaari nopp kawsaraango mooy dégg boobu ci la yonent di nandal mboolem jullit ñëpp ku ca naan nag dootoo mar mukk bon mooy kawsara inaa naka nun atay naa ka jox nan la al kawsara may bu bari kawsaru tëggat baara xaal la ci kasratu ji firi bari yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saar yi ma weesu léegi saar wu nekk yàlla may na ko ñu yatti may dañ xag bi fii wa duhaa yàlla may na ko ñu yatti may na ne ko maa waddaaka rabbuka wa maa qala yàlla bàyyiwut la bañul la benn wala laaxiratu xayrun laka mina luulaa alaaxira sax alaaxira gën sa àddina wala sawfa yu'tika rabbuka fa tardaa may na la dana la jox ba nga gërëm yatta ngoog mu teg ci yatt alam yajidka yatiiman fa aawaa fekkoon na la ngay jidi mu tapp la wajadaka daalan fa hadaa wajadaka hayran fa aghnaa mu yeneen yatt saara alam na saralum ko jamay ubbil na ko dënnam ba matan ak yeneen rek sippil na ko bakkaatam na ne ko yaxfir laka laahu maa taqaddama min dambika wa maa ta'akhkhar yëkkati na ko turam de war a xanaa rek a dikk rek gaaru watiini géñ na ci dëkkam te buy géñ ci màkka yonent bi rek moo tax bind na doomu aadama ci dund bëgg bind bëgg na rafet jox na ko yoon boo xam ne duñ ko dog amut ab dayo daarul xaraa mu melale noonam bi yetti melo yu bon gis na boppam muy ko xamal tax mu bew di tere dëgg di weddi yàlla daaru xadri mu may ko laylatul xadar ki nga xam ne melale na ko yetti melo na ne xayrun min alfi shahrin na ne tanazzalu malaayikatu wa ruuhu na ne salaamun hiya hattaa matla'il alfajri saaru lam yakun may na ko ca yetti may def na xeetam ñooy gën ji mbindeef yi def ay noonam ñuy kiis ji mbindeef yi jox leen yoon boo xam ne danañ ko gëdëm te yàlla gëdëm leen saaru zilzaal mu may ko ca yetti may xebal na suuf muy seede ñaar xeetam seeni jaamu yàlla di seede ay noonam seen mooy yàlla dana leen yóbbu dana leen fasale seen noonee ñoom ñu jëmaal dana ñaa jëm safara lépp luñ mas a def ci waxaay bu dee mën nga xam banq lañ sax ñu fay leen ko muy ñetti may saaru aadiyaat mu melal fa si jaadami yetti melo na ne wala aadiyaati daf xan fal muriyaati xatan fal muxiraati sufan saaru xarenaat ñu may ko ci yetti may diisal mandaxay jëf yu wii la xam ne ñi ko gëm danañ ko jëf may leen dund buñ gëdëm def ay noonam ca xawiya saaru alxaakumu mu def ay noonam ne danañ gis jayim danañ ko gis muy aynul yaqin dana leen laaj xéewal yam leen joxoon ci àddina saaru xasri moo gën ci jamonoom def nit ñëpp ñu perte lu mooy ñu ko gëm ak ña nga xam ne ña ngay dénkante dëgg de daaru humasa mu xalak noonu wi teg leen yàq ci xeeti mbugal duñ gën ci àddina dañuy dee daañ leen sànni ci wutama muy lakk seen muy sapp seen xol ya daaru fii di mu def noonam ya yetti xeeti mbugal def na seen pexe ci tadridin sabat ci ñoom tayran ababila def leen ni ngóob muñ góob ba lekk ko saaru Quraysh mu may xeetam wóoruloo na leen ci ragal leeral na leen danaa buñ xiifee dane loolu yëpp tey seen baax a tax mu def ko saaru maamoon mu melal noonam ba yàtt mel nga gën a bon dañoo nay bay ba max ji nim dañoo bon ba duñ julli te dañuy tere njëfu de bi nga xamee ne saar yooyu ne yëpp bu ci ne may na ko ci ñetti may moo tax mu ne ko innaa naka nun atay naa ka jox nañ la al kawsara aji bari de may naa la lu bari wala kawsara moo di lan kawsara moo di lislaam bi nga xam ne yàlla jox na ko yonent bi inaa naka nun ateenaaka jox nañu la kawsara may gu bari mooy diina lislaam bi nga xam ne te saaroo na ci jamono yonent ba fa àdduna yam dafay law nga xam ne foo dee xeet bi rek ñoo ëpp daraja ëpp ay toppkat yonent ya leen jëkkoon benn foo dee ci xeet bi rek dana am ciy toppkat lu duubal lu yonent yu njëkk yaa amoon ay junne junne ci yoon moo tax mu ne wala maa ummati ka ambiyaay bani Israël na ne su ma taxawee pencam yàlla aw xeet dana jublu si ña nga leer naññ seen xarkanam ya seen tànk yañ doon jàppe ma nga leer naññ mu ne su ko defee Musaa yu xoolu yaakaar ñuy bani Israël mais saa yu xoolu yaakaar ñuy nasaara mu ne ma ne sama xeet rek géej naa ci borom néeg bi ñun xurun moo jëli na waaw ñoo ndóobu waaw ñoo jébbu ndóobu ñoo si rek waaw ndakatewoo waaw benn alim ci sama fóode yi rek moo ñëw akam toppam beneen kuréel bu gën a mëdd gox ba ñëw ñëpp yonent yëpp daral seen i bët ñu ñëw benn xaalima jiitu rek waaw am akam toppam waaw ñoom noonu mu ne ba da ngeen nekk ñaari suñu fii ñoo ñaar janna téeméeri sappe ak nit ñooy duggaar janna juróom-ñett fukki sappe yëpp waaw ci xeet bi la ñuy bàyyeekoo bi nga xamee ne loolu lépp nag ci yàlla may na ko yonent bi te mooy lislaam moo tax mu ne ko inaa naka nun attee naka jox nañ daal kawsara kawsara wala kawsara moo di yonent ak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni doowut ak yonent ak yonent ya ko jëkkoon dafa boole mbooleem lu yonent yi jëkk ya amoon aadama yàlla xamaloon na ko tur ya ba malaaka yi si jotal ko ibrahim moom lañ dugaloon ca safara yàlla ne safara sa na sedd yàlla def ko muy xaritam muusa moom lañ joxoon kawte yu bëri ya xeet waag waxalaak niir waag ak ballal ndox ma ca doj wa isaa ñëw di docteur buy wédal jàngara ju nekk di dekkal sax ku dee daaw dañu nooyalal ko weñ bu ñuul Suleymaan ñu tàggatal ko ngelaw li mu di ci tukki Muhammad ñëw sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna ala nabi yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi benn yoon rek la malaaka yi si jootaloon aadama yonentu moom yàlla ne man yàlla ci sama bopp mboolem malaayika yi ñun dañuy julli ci yonentu bàyyi man yéen ñu gëm yàlla itam ci nit ak jinne dee leen julli ci yonentu ay millions yi millions di julli ci moom te loolu du benn yoon du benn bëccëg du benn at xana ba fa àdduna yam loolu du moo raw su jot ga malaaka yi su jot la na adama benn yoon Ibrahim safara mi nga xam ne sànni nañ ko ci yàlla ne na sedd yonent benn xaleel daanu na ci kaw dir bi wañax yaram ba yëpp roccee ko ci taxawaay yaayam indi ko ci yonent yonent raay ko mu dellu mel na meloon mel ni mosulo lak loolu kay moo raw safara si sedd ba lëkkut kii moom lakk na ba noppi ñu ñu sedd loo ko gannaaw bu mu lakkee loolu moo raw safaraw Ibrahima wa Moussa niir boo ko doon xeral yonent niir daf ko doon xeral Moussa ballal na ndox mu bàyyi ko ci xeer yonent ballal na ndox mu jóge ci diggante baaraam muy tëddee lu kenn mës a gis nag Moussa xotti na géej gi naam waaye yonent moom weer wa ca kaw asamaan la xotti sallallahu alayhi wa sallam Daawuda daana sabaal joj yi di sabaal ànd ak moom picc yi di sabaal di ànd ak moom yonent tëye na xeer ci tënkam rek xeeree di sabaal ci loxoom far mu teg ci loxol Baabakar mu sabaal ci loxol Baabakar mu teg ci loxol Omar mu sabaal ci loxol Omar loolu kay moo raw joj yi doon sabaal di ànd ak Daawuda ngir baatam bu neex Souleymane moo daa tukki ci ngelaw li yonent moom du tukki ci melax bi ak buraax lañ ko indil mu jàll waa asamaan yi juróom-yaar ak xaras ak kursi ak mustawan dem dellu si ci lu matut xool samtu gannaaw bu mu demee bayti maqdis ba ji defee yonent ya ndax du loolu raw ngelaw li nga xam ne xudu wa asharun raw asharun bi nga xamee nag lim jox yonent yëpp jox na ko ko moom moom yonent bi doolil ko ci mu ne ko inaanaka noonu atay naaka jox nañ la alkawsar aji bari ne wala kawsar mooy alquran ji lañ wàcce ci yonent bi aadama na naa leen am na wàcce nañ ci moom fukki téere téere bi yëpp naka noonu atay naaka jox nañ la alkawsar aji bari ne di la jox lu bari loolu nag buñ ko toppee maanaam fi ñu dem ba salli julli ba li rabbi ko ñaan borom sa bim la joxee xéewal yooyu julli ñaan sa borom bu tax waxut santal sa borom xam ne ko julli ñaan sa borom xéewal yi yëpp buñ ko may loo ca war a teg sant mu ne ko julli ñaan sa borom de julli ñaan sa borom mooy santal sa borom sant mooy lan tagg bi nga xam ne moo la defal xéewal bi sooy julli da nga tagg yàlla ci biir julli bi nga màggal ko itam julli màggal yàlla la yëpp éewalam ci sa xol julli moom lamboo na yooyu yëpp dal ci moo tax fa salli li rabbika moo gën a jot sës ko rabbaka ndax cant moom gëdëm ko ci lamuy rek la woon kenn mën ta gëdëm da weesu kum julli damuy wax alhamdulilah rabbil alamin màggal weesu ci ru ko su dee moo tax éewal yooyu yëpp la ko mayee julli leen sa borom nga sant ko wan xaar wajal gàttab tabaski sa te soo jullee itam ñuy màggal borom bi bu jaxam wajal seen tabaski màggal borom bi ak jëriñ ji léegi daal di ñëw inna shaani ak naka aji bañ sa ñuy xaasi wo moom lépp taru moom di ko ñu dog ci mbooleem yi yiw de ñu wax ne yow lañ dog ci mbooleem yi yiw di dëgg ñoom kay ñoom lañ dog ci mbooleem yi yiw de